du tee xabar la dawal waaye du tee ñu xam ne mooy xabar ndax lu tax masala mi min baabi tashbih dafa mel ni dafa ni banu naar sunuy doom banu abna ina dégg nga comme sunu doomi doom ñu xam ni kon doom kenn du ko nëraleeg doomi doom doomi doom la ñu nëraleeg doom nga naan sët doom la rek ay comme doom la rek du loolu la nit di def waaye kenn du ni doom comme sët la rek kenn du ko dañu naan sët eh sët de doom la rek bi maanaa maanaa kon banu abna ina ka banina kon banu abna ina fokk ñu xam ne mooy li li ñu yem ci maarifa lépp danañu xam ne moom mooy mooy muftada mi banu ndaxte sët la ñuy niraleeg doom te kon mushabba mooy doon mubtada da nga naan zaydun kal asadi du dëgg waaye dooni kal asadi zaydun dégg nga naka noonu naka seen wax ñu naan abu xanifata abu yusufa loolu la nit ñi di wax abu xanifata abu yusufa bu jëkk daan nañu ko misaale ndax yoon wu jëkk ndax waxin la woon ca jooja jamono dañoo bëgg ni abu yusufa daal comme sëriñam abu xanifata benn la taalibe bi mooy mubtada moom la ñuy niraleeg sëriñam mubtada maanaam mooy mushabbah te kon mooy mubtada sëriñam mooy mushabbah bihi te koy mooy xabar li nga xamee ne boo ne zaydun kal asadi asad mooy xabar ñu xam ni kay abu xanifata mooy sëñ bu mag bi abu yusuf benn la ci taaliba ñu ne abu abu xanifata abu yusuf moog banu naa banu am naa inaa ñooyam maarifa lañu waaye dafa am dalil ci wàllu maanaa bayaan ci wàllu maanaa biral kazaanaka noonu dégg nga na nga ni bu ñu jiital xabar mukk fam naahu tere ko ida man fiilu su fekkee fiil kaana moo nekk alxabara di xabar da nga ni zaydun qaama qaama mooy xabar ah kon dawal ko fekk ndax kooku isnaad bu am doole la li anna fiihi isnaadayn dégg nga xa wéer mubtada wéer xabar ci mubtada dellu wéer faayil ci fiil ci faayilam mu dellu di jenn jumla amma ko xaama jooju comme fiyal jooju xabar bul ko dawal boo ne xaama zaydun jumla fiyal lañu koy defe de ah xaama zaydun zayd taxaw na zaydun qaim zaydun qaama zayd taxaw na xaama zaydun zayd qaama ku déggul maanaa arab bi lool day defe benn la ci maanaa rawante wuñu te rawante nañu torop zaydun qaama moo gën a dëgër moo ëpp doole ci isnaad xaama zayd ndax benn isnaada fi ne kee ñaari isnaad ne maa fiihi isnaadaani aqwaa min maa fiihi isnaadu aw qasida wala bu ñu jubloo isticmaaluhu jëfandikoo ko munxasiran munxasaran fiihi su fekkee ne xabar ji dañ ko bëgg a jëf munxasaran fiihi muy lu ñu takku ci biiram mubtada mi la ñu takk ci xabar ji dégg nga ni ki maalana illa tibaau ahmada lu dégg su boobaa kon mu ni fam nau tereel jiital xabar ida man filu kaana alxabar aw qusida wala ñu jublu isticmaaluhu jëfandikoo ko moom xabar ja munxasaran fiihi muy lu ñu takku ci biiram mubtada ma moo takku ci xabar kooku kon itam niki innama zaydun qaimun zayd nekkul lenn lu dul ku taxaw dégg nga zayd maxsuurun fi lqiyaam wala ma zaydun illa qaimun zayd ku taxaw dong la doonul ku diyu doonul ku dem kon nag kenn du wax kenn du dawal maxsuur fii maxsuur fii toujours mooy mujj su fekkee ni mubtada mi maxsuur fii a nga ni ma qaimun illa zaydun ba tey mooy mujj de waaye moom la la ni aw qusida wala buñ jubloo isticmaaluhu jëfandikoo xabar ji munxasaran munxasaran nag tànn nañu fataa saad ji munxasa saad gi munxasaran fiihi maana muy lu ñu takku ci biiram mubtada ma dañ koo takk yamale ko ci xabar ja képp du ko génn illa fa yaa rabbi waxal illa bika nasru yurtaja عليه وهل إلا عليك المعول وهل إلا عليك نانا نانا ندمل بك يرتجى دنجكو ياغار تي يو رك لنجكو ياغار وهل دنجا وهل المعول ndax amna fu ñuy sukkandiku إلا عليك ludul ci yow koku shadl ها wa hal illaa alay ndax kooku dañu waroon ne halil muawalu illaa ala allah sukkandikukaay am na fudul yàlla déedéet dégg nga kooku moom chaag la buñ ko xiyaas aw kaana wala su nekkee moom xabar ji musnadan di lu ñu wéer li mubtada in di laam ibtidaa in mubtada mu ànd ak laamul ibtidaa u niki bu ñu ne la zaydun qaa'imun kon qaa'imun laamul ibtidaa dafa bokk ci yeeyoo sadru kalaam benn la ca kon bu ne la zaydun qaa'imun kenn dootu ne qaa'imun la zayd qaliila anta wa man wa man jarirun xaaluhu yana lil alaa a baytu uma gëj a ngoog ba di ko fàtte xaalila anta wa man jarirun xaaluhu ayo yana lil alaa wa wa yakrumil axwala kooku ci shaadi la bo xaali la anta la anta xaali aw laazimi sadri wala ñu wóor wéer ko ci lépp lu taxoo sadru kalaam kon léegi atfu am ci xaas la ndax lu ñu wéer ci laamu libtida dañ ko wéer ci laazimu sadri waaye nag dafa fekk kooka luzoomu sadri li xayrihi tax laam gaa tax dégg nga wala beneen lisim boo xam ne bu yorul laamu libtida ut laazimu sadri la niki ismu listifaam niki man lii kan mooy nekk ñeel ma mun ji dan mbir mu muy aji dimbalee ismul istifham da yooyu sadru kalaam kon man istaxaqa sadral kalaam li zaatihi amma la zaydun zaydun yeyoona sadru kalaam laa li zaatihi bal li ajlillah loolu moo tax mu ber leen dégg nga wal wa nahwa indi ah mun jidan xaal la man kan mooy nekk lii di aj ñeel ma xaala kawnihi mun jidan di aji dimbali wa nahwa indi dirhamun wali watar multazamun fiihi taqaddumul xabar dégg nga wa wa naxwu indi dirhamun lu mel ni boo nee indi nekk na fi man dirhamun ab dërëm dirhamun di nakira di mubtada mujj indi di zaraf di xabaram dawlu ko lu mel noonu mul ak wala mu doon jaar ak ma di nga ni lii ñeel na ma watarun ab aajo watarun di nakira di mubtada lii di jaar ak ma ji rooj di xabaram dawlu ko yooyu yaari tarkib daal di dagan waaye noonu rek nga ko mën a def multasamun lu ñu war loola fii ci moom taqaddumul xabari jiitu xabar ndaxte mubtada bi nakira bi dara dag dara na lu libtidaaw bi nakira dara daganul mu am fii lu dul lii rek li mu doon zaraf wala majruur te ñu dawal ko bu loolu doo nga daganal nga def mubtada bi nakira soo bëggoon dirhamun indi ñu bañ soo ne watarun lii ñu bëgg ndaxte kon xabar day daal di jaawaloo ak naat ndax nakira naat ji ko tax si sa la gën a soxlaas nga di ko wutal xabar boo koy siiwalal fi nit nit ndax matagul négal ba mu mat nga door koo andil boo ne zaydun tabarkàlla mat na sëkk nga ne xa indi baax na zaydun indi du dëgg kon bu la neexee indi zaydun te zaydun indi waaye nag dirhamun nakira dong la dirhamun ab dërëm indi dañuy defee ne naatam la ndaxte nakira lu ko tax si sa la gën a bëgg dirhamun dërëm indi maanaam ab dërëm bu dee aji nekk fi man day ñu ne ah defee ni indi goo xabar loolu tax nakira dañu ko dugg dégg nga mustasamun multasamun fii taqat lu ñu warlu la ci moom dawlu xabar ndaxte dawlu gi moo tax mubtada mi mën a nekk nakira kaza ida aada alayhi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yuxbaru damir yu bare ngoog ci baytu wow mën na tax mu xaw na xaree tekki ci mubtadi kaza naka noonu ida aada su delloo alayhi ca xabar ja mudmarun ab damir mimma jóge ca mubtada ma nga xam ne yuxbaru anhu danañu xabaar yuxbaru bihi danañu xabaare xabaar def xabaar je anhu jële ci moom waaw léegi nga ni fi daari saaxibuha fi daari mooy xabar waaye day foofu mooy dawlu faw ndax saaxibu mii mubtada du dëgg boo ni woon saaxibu daari fiiha loolu boo mubtada xabar la ba tey bi nga ne fi daari saaxibuha ba tey fi daari mooy xabar ah saaxibu nag di mubtada waaye dafa yor damir ju dellu ci xabar ji ah su boobaa nag fokk mooy mujj wa illaa bu dawlu woon lu ñuy bañ dikk te mooy li ñu ni wa awdu mudmarin ala ma uxira lafdan wa rutbatan xabixun xudra damir ju dellu ci loo xam ne moom la ñu mujjee tudd te moo gën a féete gannaaw ci daraja feel ak fa fayil ak mafool bu ñu àndee ku ne xam na ni mafool a feer fegg daraja fayil ak ëpp daraja mubtada xabar bu ñu àndee ku ne xam na ni xabar a mujj ci daraja mubtada ko ëpp daraja kon bu damir jóge ci li ëpp daraja dellu ci la mujj daraja lu dul ñu dimbali la mujj daraja ci dawal ko suñu ko dawalee lu mu bon bon ah ma yokke loolu darajaam ay wa mbir ma mën a témboo mën a am jekk waaye nga daal den ni saaxibuha fi daari kooku dañoo bañ loolu damir ju dellu ci lu mujj moo mujj ci garaat mujj ci tudd su mujjee ci lenn li na jiit nañ ko jiital ci lenn li moo tax mooy ni bu fekkee damir dafa dellu ca xabar ja jóge ca li ñuy xabaare xabaar ja jële ci moom noonu la ko waxee mimma jóge ca mubtada ma nga xam ni yoxbaru def na xabare bihi ak xabar jooju anhu jële ci moom mu bii nan mbir mu muy aji biral xaalam kon bu mu ko def niki fi daari saaxib wa dégg nga ñàkkul yow it nga misaale ko leneen xëy na ah loolu su ko defee ba tey day war ñu dawal xabar kada ida yastawjibu tasdira naka noonu su fekkee xabar dafa bokk ci lisim yi yelloo ku ko def sadru kalaam dafa yastawjibu yastawjibu dafa yelloo ak tasdira njalbeenal maanaam def ko ci sadrul kalaam ndax day ismul listifam ni ki ayna ayna man alimtahu ana kan nga xam nasiran muy kuy dimbalee aywa man mi mooy mubtada ayna mooy xabaram waaye fokk mooy dawlu ndax ismul istifham dafa yow sadru kalaam looloo tax nga naan kayfal marid naka malaat ba def kayfa mooy marid maanaam al maridu mubtada kayfa ay ay xaalin alay wa xabara al maxsuuri qaddim abada kama lana illa ittibaacu ahmad wa qaddim daawaral xabara al maxsuuri xabaru mubtad moo xam ni dañoo takku ci biir maanaam maxsuuri fiihi la bëgg ba tey mooy min baabil xasfi wal isaali wa xabaril mubtada il maxsuuri fiihi l xabaru mubtada su fekkee xabar lañu ta yeew ci moom takk ko ci biiram kon na xabar ja dawlu faw ndax danu ni maxsuur fiihi toujours mooy mujj kam xadim abada niki nga ni maa lanaa ñeelunu illa itibaawu ahmada lu du topp itibaawu ahmada mooy mubtada lanaa de xabaram waaye nag na dawlu ndax soo noon soo noon mattibaawu ahmada illaa lanaa seetal kon maanaam mi dafa di soppiku yow kon foofu dangaa wax ni topp ahmad nun dong dong dong noo ko def ah bu boobaa nag du mën a wér waaye soo ne nun amunul lu nu def lu dul topp ahmad dong dong dong sunu mbir yëpp mu ngi ñu yemale ci biir ittibaawu ahmad kon lanaa na dawlu maxsuur fii bi na mooy mujj toujours su fekkoon ni daneen waay boo xam ne yéen dong nga ko topp nga ni nag mattibaau fulaan illaa lana waaw bu boobaat nga wax dëgg nag ndax lanaa mooy maxsuur fii comme yéen dong dong dong yéen a moom loolu wa xadfu ma ahaabuki ijlaalan wa ma biki qudratun alayya walakin milu aynin xabibuha fi daari saaxibuha moom mil u aynin xabibuha ñooyam damir ji ci xabibuha mubtada mi ma ngi dellu ci mil u kon nañu dawal mil u ahaabuki maa ngi la ragal yow ndaw si ijlaalan ngir màggal wa ma biki te mbir moom kat xam naa ni nekkul ci yow qudratun alayya doole jooma mën a jaay kat xam naa ni wóor na ma ni amuloo ko walakin mil u aynin xabibuha feesu bët la xabibuha soppe bët la maanaam nit ki mu bëgg day fees xolam day fees bëtam moo tax dama feesu ku dara fees sa bët nga ragal ko xëy bëgga day màgg fi sa xol ba nga ragal ko xamuloo sopp nit ba mu ëpp day tax ragal ko foofu mil u aynin xabibuha cofeel bu taree ndax doo doo attan lu ko laal doo ko bëgg laal mu gaañu doo danga koy mujj ragal mil u aynin xabibuha xabibuha mooy mubtada damir nekk ci dellu ci mil u aynin ci aynu la dellu waaye mudaaf ak mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi min tamaamil mudaaf kon mil u moo yor liraab ji ndaxam mooy xabar sax waaye dafa laaf aynin moomu te mudaaf ak mudaaf ilayhi shay'un waahidun shay'aani mutalaasiqaani mutaraabitataani lu dellu ci mudaaf ilayhi mi mooy nag ci mudaaf la dellu wa xadfu ma wa xadfu maa yuclamu jaaisun xadaf lu ñu xam lu mu jaaisun lu dagan la muy mubtada muy xabar su dee mubtada xabar ma lépp bu ñu leen xamet sooy boo xadaf mubtada xabar ma yëpp ñu xadaf ko mu dem ni ki kama taqulu ni ngay waxee ni zaydun xadaf xabaram baada qawli alqaa'il gannaaw waxu aji wax ji waaye yow man indakuma ku ne fi yéen ñaar nga ni ko zaydun maanaa indana zaydun sooya boo nga xadaf ko du dëgg ba tey safaan ba wa fi jawaabi kayfa zaydun ni ngay waxee ci bu ñu la ne waaw zaydu na mu def xul nga ni danifun ku feebar la du dëgg danifun aji feebar la xadaf mubtada lu doon cosaan zaydun danifun waaye nga xam ni xam nañu ko rek nga xadaf ko wala ñoom ñëpp mubtada xabar yëpp bu ñu ko xamee bu ñu leen di woon waaw saydu zaydun danifun di la laaj nga ni naam ah naam xaraf la xarfu jawaab la remplacé na jumla dafa mel ni daga ne naam zaydun danifun kon xadaf nga mubtada xabar yëpp ngir dañu ko xam mu ni boo ne jawaabu zay kayfa zaydun waxal ni danifun rek aji ràgg la ay laazimun lil marad danef mooy luzoomul marad dégg nga fa zaydun zayd ustoxni anhu doylu nañu ko ba jarul tudd in in orifa bañ ko xamee waaye ah nahnu bi ma indana wa anta bi ma indaka raadin wa rayu muxtalif nahnu nun raadoona ñu kontaan lañu bi ma indana ci li nu yor dégg nga wa anta yow raadin ku kontaan nga bi ma indak wa rayu xalaat muxtalifun lu wuute la ah kon nahnu raaduuna xadaf nañu xabaram ngir ña ngi ko xamee ci wa anta raadin raadin jooju moo tegtale ni nahnu kon raaduuna lu doon cosaan nahnu raaduuna wa anta raadin fa zaydun ustogniyaan ñu ni nag ibnu malik day su bëggoon lu gën a neex a dégg ci nopp dafa naan wa fi jawaab kayfa zaydun qul salim fa zaydun ustogniya anhu id ulim nee na bu ñu la nee Zayd dama def nit mucc na moo gën a neex a dégg ma nga taxoo feebar di bëgg a dee maanaam rek ñow xam nga duñu ba dara wa fii jawaabi kayfa zaydun qul salim fa zaydun ustoxniya anhu id ulim ñoo yem ci li mu wax kat benn lañ ci ma ngi moom salaamatu dafa neex a dégg ci moom moo gën a neex a dégg danaf bi nga xam ne mooy mulaazamatul marab dégg nga li ñu wax wa baada lawlaa xaaliban xadful xabar xatmun wa fi nas yaminin dastaqar léegi beneen leneen la jël foo xamee ni dañoo war a xadaf xabar fee daganu xadaf xabar buñ ko xamee moom mubtada rek la doon wax fii nag dafa am foo xam ne fokk xabar des ko fay xadaf kenn du ko tudd mooy bu dikkee ci baada lawlaa lawlaa limtinaaciya waxunu lawlaa taxdidiya ni ki lawlaa faalta kada kooku fi la cay topp waxunu boobu waaye lawlaa zaydun la akramtuka soo ko waxee nit ki xabar ja kawnun aam la maanaam lawlaa zaydun mawjudun la akramtuka su dul woon zayd su dul woon li zayd am lu dul woon su li zayd nekk lu zayd am bu dul woon loolu waaye zayd zayd am moo tax zayd moo tax lawlaa zaydun la akramtuka foofu xada waajibun ndegam nag wujoodu mutlaq la te mooy kawnu am wujoodu mutlaq mooy kawnul am rek benn maanaa su boobaa ndem mooy amma bu fekkee xabar ja nag kawnu xaas la ah déet kooku moom bu amee dalil sooy boo tudd sooy boo bañ a tudd su amul dalil fokk nga tudd ko bokkuñ moo tax ndax ki maanaa bi mooy lawlaa zaydun mawjudun la akramtu ko amma bu fekkee da ngaa jubli ni lawlaa zaydun yuciinu nii kon jumla yuciinu nii mooy xabar waaw maa ngi ñëw lawlaa zaydun yuciinu nii la akramtu ko su fekkoon ni lawlaa zaydun yuciinu nii maanaa lam lam aqdir bu dul woon zayd moo lawlaa zaydun yuciinu nii lam astati dégg nga nee na kon yuinu nii dañuy xam ni adamul istitaati bi amul lawlaa limtinaa ya la ñu koy wax yadullu ala imtinaa il jawaabi li wujud e maana im- imtina'un li wujudin moo ñu di ko wax limtinaiya ndax day tegtere imtina'ul euh, xabari ah li wujudil mubtada ah lawla zaydun maana jawaab ji laa wax imtina'ul jawaab li wujudi chart lawla zaydun mawjudun la akramtuko wa- su ko defee waxal nag xadis ba yonent alayhi salaatu wassalaam ba nga xamee ni Quraysh tabax nañu Kaaba ga ci ba mu amee fanweeri at ak juróom préparé nag ni néegu yàlla bi benn dërëm bu lewadi bu ñu ko ci def buñ ci def riba buñ ci def mahrul baqi jigéeni moykat yi nga xam ne dañu daan def seen bopp comme hôtel comme ku dikk daal alal yañ cee dajale ba ñuy dajale lu ñu ko teg loolu moom te loolu bagaaya bagaayaal arab da daan bare torop Quraysh amoon na ay bagaayaa yu bare booba seen alal nanguwuñu dërëm dem ca dañuy tànn alal yu lew yi ñu dajale dajale nag mu amuñu lu mën a tabax li Ibrahima alayhi salaam fondement woon lépp amatuñu ko ñu ni kon nañ ci yëkkati lu nu mën ñu wàññi ci xijir boobee ngay gis ca Kaaba ga boo fa demoon da nga gis miir suñu def ca gannaaw loolee dafa caa am lu bokkoon ci Kaaba gi te amuñu alal ju ko lew ñu wàññi ko ca moo tax dégg nga moo tax fii mu ne kuy tawaaf da nga koy aar ca gannaaw xijir ba tawaafaale ko ndax soo jaar yi ci biir sës ci miir bi ci côté bi côté sowu gànnaar yëgal ni ci biir Kaaba gi nga jaar lu bokk ci Kaaba gi kon sa tawaaf du baax ba léegi moo tax ñuy tawaafaale xijir boobu la dégg nga ñu def ko ca gannaawam def fa miir bu xaw a rond nga xam ne da nga koy wëraale booy tawaaf soo ko bàyyi woon nag ni man kaaba gi rek laay tawaaf daal di dugg ca mbunt sañu fa sàkk tafu ci miiru kaaba gi ci côté soowu gànnaar kon bu boobaa yaa ngi boobu boor moom boo fa tafoo ci miir bi ci biir kaaba gi nga ne ci ci fondement gu Ibrahima ba yonent ba alayhi salaatu wasalaam nag yàlla xamal na ko fondement gu Ibrahima ba fa mu nekkoon Quraysh nag yëkkati la ñu mën ci alal ju leew mooy fii mu taxaw ba léegi ci tàngi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu wax ak Aïcha bis fekk boobu nag nit ñi bare na alal jàppandi na ju ñu liggéey mu ni ko lawlaa qawmuki xadiisu ahdin bi kufrin la banaytu alkaabata ala qawaacidi ibrahim mu ni ko bu dul woon sa mbokk yi te mooy saxaaba yi rek ñu ci bare Quraysh bu dul woon xaj dañoo nekk xadiisoo ahdin bi kufrin di ñu bees ak gëj gu ñu gëj ci kéefar yàggul seenu ngëm tuubeen yu bees lañu su dul woon ni dañoo nekk tuubeen yu bees loolu mooy xadiisoo ahdin bi kufrin kon bi maanaam mel na dafa ko ni bu dul woon sa bokk yi dañoo nekk tuubeen yu bees kon la banaytul kaabata ala qawaidi ibrahim kon ñàkk a tabaxam kaaba ga ala qawaidi ibrahim ma ngi lu ko tere ah xanaa seen nekk xadisoo ahdin du jéggee ni seen seen seen amuk mutlaq taxul de moo tax foofu gannaaw amul dalil dafa war sax ñu tudd ko law law laa qawmuk maanaam maanaam mënees na ko tudd mënees na ko xadal ndaxte dafa aju ci ajuwul ci kaw nu mutlaq dégg nga law laa qawmuki xadisoo ahdin mooy xabar qawmuki mubtada la xadiisoo ahdin mooy xabar foofu tudd nañu ko te ci gannaaw law laa la dikk ndaxte labanaytul kaabata bi jawaab jawaab ji dara wujj seen wujjoodu mutlaq terewu ko déedéet seen nekk di ay tuubee na ko tere kon li ko tere seen sifa la mooy seen nekk di way bees yi ngëm te bëgguma laal ko ñu ni la ni ar xormay kaaba gi toloon fi xoli arab ñu daal di ni gis nga ma ngi woote ni yàllaa ko yónni ma ngi de amul lu mu def lu dul ma ngi toj kaaba gi xam nga loolu la la ragal mu ne ko ah bu dul woon day sa bokk yi dañoo nekk ñu ñu yàggula jóge ci kéefar dañuy tuubeen yu bees bu dul woon loolu danaa tabax kaaba ga ci fondement ngi Ibrahima defal ko ñaari bunt bu jaar ci kanam ak bu jaar ci gannaaw wa jaaltu lahu baabayn baabayn ñu jël xadis boobu ñu ni def ko am ñu ni nag dagan naa tudd ndax law laa xawmu ki xadisoo ahdin bi ko ñu ni déet li am dañ koy séparé su fekkee ni jawaab ji ad li imtinaaul jawaab ma ngi ayu ci wujoodul mubtaday wujoodan mutalaqan kooku moom kenn du tudd xabar ja mukk abadan ni ki lawlaa zaydun la akramtu ko maanaam ndem da ngaa jub lawlaa zaydun mawjoodun rek la akramtu amma bu ad ajoo nag ci beneen sifam mubtada bi dina ni ki kawnuhum ay tuub tuubeen bees nee na kon bu amee dalil bu la neexee tudd bu la neexee bañ a tudd waaye bu amul woon dalil nag ah foog nga tudd ko lawlaa abuka wa lawlaa qabruhu qablahu umarun alqat ilayka ma addun bil maqal kon arab yëpp jébbal leen seen wamat léegi nag waaw léegi nag kon am ñeneen nag ñu ni déedéet du waajib def kii muy shaahid am ñeneen ñu ni sax loolu du waxi arab alxadiisu marwiyun bil maana bayt wiñ ci wax ñu ni masnuun maanaa baytu la boo xam ni mu walladin yi ñoo ko def waaye bu doon waxu arab bu jëkk duñu ko waxe xadis bi ñu ne dañ ko riwaaya ci maanaa te riwaaya xadis ci maanaa dagan na alal asax wa ra'yi l arbaati wal jumhur mu kile wax na ko wa naqlu bil maana alal mashhuri wa ra'yi l arbaati wal jumhuri ñu riwaaya xadis ci maanaa ndéem ki koy riwaaya xam na maanaama dëgg dëgg dëgg indi alfaaz yu wuuteeg yu yonent ba waaye lay maanaama dara dara desu ca kooku nee na lii mashhur tey mooy ra'yul ayimmatul arba nee ñu dagan na ci xadis ñu ne dañ koo riwaaya ci maanaa rek ndax nee ñu law araada dalika la qaala lawlaa xadaasatu ahdi qawmika bi kufrin la banaytu mu dellu ci wujoodu mutlaq moo tax dañu ni lawlaa jawaabam ci wujoodu mutlaq rek lay aju daa iman ñooñu loolu la ñu woote ataa bu looyu maanaa bii bu ko bëggoon wax dafa naan lawlaa xadaasatu ahdi qawmika bi kufrin nga xam ni mubtada mi dong la mu daaf ak mu daaf ilay lawlaa xadaasat ana luy xabar ja kon lawlaa xadaasatu ahdi qawmika bi kufrin lawlaa dalika mawjudun kon mawjudun dong la wujudu ma dafa am ñu woote ni wujudu mutlaq rek lay aju su ko naroon danaan la lawlaa xadaasatu ñu ne daal di ni waxul loolu su ko naroon loolu lay wax lii marwiyun la bil maanaa laysa lafzahu loolu la ñooñu wuute woote nettali nañu ci baytu ñu kile baytu mutanabbi nee na di wasaf jaasi yudibu ru'bu minhu kulla adbin fa lawla alghimdu yumsikuhu la saala ñu ni gis nga lawla alghimdu yumsikuhu jot tudd na ko foofu la saala ñu ni leen ñu ni albaytu masnuun maanaam du matul dalil ndax waxum wallad la koo xam ne dafa jàng arab bu dem ba jàng dégg arab di def mu ngi mel ne nun ñii nu woy waxu arab mën na noo wax ci arab noo xam ne bu doon arab du ko waxe noonu la ñu